Le Sénégal est constitué de 17 millions d'habitants. dem fal muy ay maire ay députés. pour nous doxal pour dëkk bi mën a jëm kanam ñu jël moitié jox ko Macky Sall jël moitié jox ko opposition pour xool ku ci nekk la mu mën ñu jël ku mel ni man sama yaakaar yëpp def ko ci opposition parce que dañu gëmloo politique autrement on est en temps de crise Deux bi à partir de 23 h 6 h du matin xam sais pas. xew maire bi dafa ne nañuy fay lampe yëpp benn lampe bu mu économiser Sénégal le 25e pays le plus pauvre au monde Il ñi ne vingt je man ma ci pauvre ya ñu a ñu am suñuy maire yu bokk ci opposition bi man wa pouvoir bi bu ñuy yàq bu gisé ñuy xeex changement parce que wa pouvoir bi dañuy yàq mais bu ñu ñëwee jox doole suñuy voix opposition bi c'est pour que ñom ñu bañ a défar defar mais ñooñu bu ñu ñëwee tamit di yàq comme wa pouvoir bi ah xel day tey kenn rek laa ci seppi muy président Ousmane Sonko ndax gisaguma ko ca maire mais may mun a ba ca Padois maire ba nekk ca Thiès ki sant euh, kii nga xamante Babacar Loxoma nga xam ci askan bi toute cette bande là jot nañu seeni vidéo ci seeni xawaare en tant que maire xawaare yi ngeen defoon États-Unis fekk si nañ xawaar yi ngeen nekkee ndakaaru fekk si nañu ñun nag suñu voix la ñu un homme averti en vaut deux ñun waxuñu dañuy xaar ba Macky Sall jóge fi ñu doog a defar déedéet ndax yéen dañ leen fay salaire actuellement pour ngeen servir le peuple sénégalais c'est maintenant salaire bu ñu leen fay du pour bu Macky Sall demee ngeen doog a liggéey léegi ngeen war a liggéey. suñu yaay yi dañ leen doon nax nee bu ñu jëlee réew mi déedéet dañ leen dénk genn wàllu réew mi yéen opposition bi waroo leen def comme waa Macky Sall corruption waruñu leen caa fekk comme waa Macky ndax bu Sénégal yëpp waccoo Macky ci ay jëf yu bon la ci ay corruption sàcc luubal fenn buñ leen tamo pour ngeen génnañu ci sàcc luubal fen ngeen am benn point de référence muy président Ousmane Sonko moom di ba léegi yàlla rek a tax may wax de parce que ñu ngi gëstu parce que buñ ko gisoon ci xawaare yi nga xam te ne ñoom Barthélémy Dias ca lañu nekk dañ koy wax fii buñ ko gisoon ci xawaare yi ñoom may mun a jëy nekk di toog di lekk bay nalaw ca table ba ñu leen di photo duñu ko yónnee dañ koy teg fii Arrêtez de prendre les Sénégalais comme des cons. Les politiciens. yow baat yaa ngi jooy ne Macky Sall fayul ña nek ca mairie ba Né bu Macky Sall di bu dul fay yow ngay yak. kan la ñuy ci ndol mi ça c'est une question que je me pose ubbi leen seen bët ngeen xol bu len kenn nelawlo. entre la parole c'est pas la parole qui compte au fait c'est les actes

je vous ai à l'œil maam jaara bu yuuxoo yuuxu yuuxu dafa am Simone Veil li mu wax lu am importance mu c'est quoi euh, ben euh, lan mooy parti politique mu ne parti politique ay copains lañu yuy défendre sen idée pour bu ñu défendre sen intérêt crypto personnel jëfin boobu ma gis ko ci maam jaara faam mom bu fa nekkee nit lay défendre muy ah comme si tout le Sénégal se résumait en une seule personne te ka muy défendre mu ngi lekk ba suur nous ba regg bu feebaree day faju kon xam nga jarta défendre bu ñu ñëwee dañuy endormir endormir ñu ba ñu nelaw ñu dem toog kenn rek moo taxaw ci assemblée nationale bi jàkkaarloog ñoom di ko raas muy saf di saf di laal sama xol muy Guy Sagna ministre bu nekk c'est lui seul qui a l'audace d'être devant les ministres et de leur dire vous êtes des voleurs à part moom kan moo ko def mais personne pourquoi vous n'avez pas les couilles lu tax porté woo leen couilles pour jakarlo ak ministre yi comme ni gu gi Marius nya di dak di jakarlo ak ñom di len traiter ne sacc lañu parce que sacc lañu keroog boobu gi Marius nya di waas euh, Doudou Ka Doudou Ka Ka ñeneen ñi lu tax waasuñu Doudou Ka Ka déedéet waasuñu Doudou Ka Ka de ñoom waasuñu Doudou Ka Ka di Marisa ñaa moo la jàppal bu Duudu Kaka diko was diko was diko was bum ko waas set wicc te dudu Kaka yekati wul kanam gi xol ni Guugu Kaka di wasé xanaa yenen ni ni nit espagnol yi do xana am ñu xoxunees ils n'ont pas les couilles de se mettre devant ces gars-là hein, et de leur même limite même leur donner une bonne baffe di nga bala may contact ah ngeen mbajal ma fa benn ministre bu ñu sàcc kanam gi riir bu boobaa on saura pourquoi on va en prison au lieu ngeen di mbaj ay femmes seen loxo yooyu boole ma jàppaloon benn duudu kakaar dóoral ma ko benn ngandu maamu mbaj bu pataa ba muy riir ba suñu xaalis bi di riir bay sotteeku ci suuf ma ne leen bravo seen moromu góor lañ de ngeen nekk ci biir assemblée nationale bi kenn rek kay raasanteex ñoom di def yëfu góor muy Guy Marius ci ngeen di wax yëpp dafa nooy man maa bañ góor gu nooy mu mel ni benn góor rek moo des Sénégal muy Guy Marius Sagna ministre bu ñu teg mu waasal la te lu mu ci waas ministre bi lu bi gémmiñ a wax Mansour fay mu di ñu waasal Mansour Faye di ñu ko waasal ba Mansour Faye

day protéger son entreprise day consommer local day promouvoir local pendant que monsieur le maire soi-disant je suis le maire de Dakar je suis député boulimé du pouvoir di lambar lambareex tubaab yi ci ay hôtel pour signer des contrats avec les blancs Guy n'y a amee respect fi maire de Dakar di joxe ay bons de yo yo

pour que tout nos, tout, tout, toute l'Assemblée, ou bien c'est la Wad qui vous paye, ou bien le Sénégal se résume en l'Aïwad. Mam Diarra Wad L'Aïwad, moi, kan. L'Aïwad, mon nom, ne boudé d'aïe. D'ailleurs, mon n'a c'est parfum. Nak, le meilleur, c'est un charisme. D'ailleurs, mon n'a un parfum. Boudé, yaram. Ça y est, beaucoup un botox il est riche il est plus riche que ton père ta mère il est plus riche que presque tout le Sénégal il mange à sa faim il se soigne quand il veut il voyage quand il veut il a un budget pour prendre l'avion de 40 millions par an il a trois fois la retraite de Sarkozy il a des bonnes il a des gardes du corps en notre charge nous, sommes sénégalais nous, Sénégal, nous ñun ñoo fay 40 millions par an budget pour voyager pour sommes doxi puukareem droit 40 millions pour dem doxi ci Nous, ñun ñooy fay seen 5 millions France nous dëkk di fay France Nous, nous fay garde du corps France nous dëkk di fay France Nous, ñoo nous di fay nous ñu France di France il gagne l'argent du contribuable sénégalais pour aller verser au blanc. et vous n'avez rien compris comprendre l'indara dans votre douleur il est patriote il est patriote comment il réside où en France comme Abdou saint comme saint Senghor quand il est mort le château il l'a donné à qui à la mairie de Calvados daf ko may suñu maam déedéet daf ko may suñu nijaay déedéet jabar ja ba muy dee xool na taalibe yi nekk Sénégal déedéet maire bi la ne yéen moom château lu mu leen ñaan mooy ngeen koy entretenir pour suñu mbokk yi mu ñun am nañu droit dalee ñur yurlu te yurlu ba da ngay fay xaalis ba dugg ci maire de Calvados ñun boobu héritage lañu am ci Senghor ban héritage lañu am ci Abdou zéro du tali bu baax du dara bu deewee tamit lépp lu am France France moo koy jël ban héritage ngeen am ci seen ministre yu dee zéro quand il meurt la France garde tout pour lui pour elle nous rien du tout nous avons encore ay descendants un héritage yëpp France day des États-Unis Est-ce qu'on se pose la question pourquoi l'Afrique est pauvre est-ce que tu as un héritage au Sénégal la des politique en France il y en a pas Nous sommes sen al sen dëkk la des ñun ñooy def politique dem di leen est-ce que héritage au Sarkozy Sénégal lay des non héritage au Sarkozy France lay ñëw

l'héritier d'un pétrolier est en prison Dame Amar l'héritier de quel pétrole du pétrole du Sénégal Dans les ñu koy def kan encaissé wa Qatar Nous ne la caution faire la investir ñu ne la Qatar Qatar xaalis pour fa du du génn de génn marchandise mooy c'est-à-dire tu mets ton argent là-bas pour le faire sortir, tu achètes de la marchandise, tu perds 50% de ton argent. moo immeuble yi di sax di law ndax ñoom seen xaalis du génn du génn di dem Afrique est-ce que a na wërsëg union buy jógee Qatar di dem Afrique déedéet France sax a Qatar ndax ñun am le droit yónnee wërsëg union Afrique mais foofu xaalis bi du génn xam nga lan

nga dem dans le 25 e pays le plus pauvre au monde xaalis ba moy génn marchandise ba tok ci dëkk ñun loolu dund ñun ñun loolu dund légui lañuy dund daf ñoo neex man je vais dire que oui ça nous plaît pourquoi ça nous plaît parce qu'on ne fait rien qui ne dit rien consent yi nga boo la may États-Unis semaine di lambar lambar di ba bay ak suñu inconscience totale xalaatuñu ne nga deux jours duñ fa def mission wu 15 jours soma yi ngay gis ay jours 4 jours parce que calculer koppar bi dépenser tous les jours parce qu'ils sont conscients boo ñëwee ba on est inconscient de la tête aux pieds moo tax kenn nawloowuñu di nga inconscience buñu am motax di nga gis sénégalais nga gis ñuy lambar lambar yépp suñu dëkk té am nationalité yenen dëkk yi c'est parce que yenen dëkk yi soxlawuñ leen ndax malit lañu ndax dañuy yaq kan mo soxla kat personne dañ né ne doomu Macky Sall amna na nationalité américain est-ce que américain yi nañ ko jox poste na fa dem mindano sax du ko fam ñu ne la Barthélemy Dias am na nationalité américain na fa dem nga xam dina fam am mbindaanu sax du ko fam parce que ñooñu ils sont pas assez ils sont tellement intelligents que ah mun nañ reconnaître un con un abruti un un un voleur et une personne intelligente. nga encore boo suñu comportement man suñu comportement rek la wax de suñu suñu président dem na lambar lambari feulé fële Dubaï pour dem ji football gis ngeen Biden gis ngeen fa Macron Le président yey liggéey tal leneen lambar lambar ci ay joueurs final xaar sax ñu dem ni supporter final pour ñu jëli ji coupe dañuy dem coupe président yi ouverture di lambar seul seul je pèse bien mes mots président de pays sous-développé On parle. On parle nga fa lambar Macky Sall Macky Sall la nga fi woon di lambar lambari mais boo xoolee ci el bi doo leen fa gis Macron mu ngi liggéey doo ñu fa gis Biden mu ngi liggéey parce qu'on est en pleine crise taluñ kenn ñoom ñu ngi lijjante ni seen waa dëkk avant maa nuyu bu baax a baax ñu ngi lijjante ni seen waa dëkk di développé pendant que ñun suñuy président mu ngi def la guignol Mais comment voulez-vous vous développer en faisant le guignol Donnez-moi ça, développer développement des jaar gauche développement des jaar gauche ngeen jaar droit. après bon ñu toogee nga France mon Newton, France mon lekk France France balaa mon ñuy tooñ comme ni ko Guy Marius Sagna imbécile politicien politiciens yi Sénégal ah dooméram dañu ñëw fekk ay politiciens lappato imbécile première catégorie ñu di leen jàppal il ne faut que soutenir les voleurs qui sont sur le terrain léegi bu ñu paree ñu ne waa ñoom ñooñu ñun ñoo ko def ñun la ñun la ñun la ñuy fay jox ñu sandwich nañu kaay kaay votel ma ngir sandwich pour man ma tekki yow nga des sa ndóol ba ñun la de ñun ñun ñun nañu ju xoolante bët ak bët Koudia maa lay bu baax a baax Bandia maa lay nuyu gis nga toog naan nañu dem xooli ji kañu fa fële yow mënoo romb ki la tooñ fii dem di lijjante ka la tooñ fële ñun la ñun te Barthélémy Dias politique ba amoon depuis PS ba léegi di leen di sarax ay jakarta di di doxat ci seen kaw di day ci seen kaw lay nekk di def na Abdou Diouf doon def madame Moulin ma monsieur Forage la mu ko jàngal rek madame Moulin monsieur Forage la mu ko jàngal loolu rek lay def léegi di nga ma ne maam Jaara Faam lu muy def maam Jaara Faam moom lay def Laay Wàdd la benn héritage rek la jël ci Laay Wàdd muy Fantomas xam nga Fantomas c'était un monstre donc moom dafa ñëw rek à la Fantomas

di fayal seen bopp ay gàmbaas yu neex ndeysaan di dund dundu pacha bu ñuy dem dañuy yóbbaale ba seen doom seen mbokk yi seen voisin yëpp ñëw leen venez manger o oh, c'est l'argent du contribuable après ba leen jàkkaarloo weex ñun waaw ñun xam nga Macky Sall li mu def xam nga Macky Sall sàcc la Macky Sall sàcc la ñëpp xam nañ ko ñi mu àndal sàcc la ñu ñëpp xam nañ ko soxlawu ngeen ñuy répéter loolu ba suñu nopp yi di amul Sénégal kuy juddu xale bi doo ko juddu démb sax boo ko nee Macky Sall ndax day sàcc wala du sàcc mu ne la sàcc la Marème Faye ndax sàcc la mu ne la sàcc la Mansour Faye ndax sàcc loolu soxlaatul ñu koy jàngal benn sénégalais xamul lu ñu soxla tey ku ñuy liggéeyal à la hauteur de l'argent qu'on vous paye loolu la soxla soxlaatuñu koo xam te dañuy répéter ah Macky Sall sàcc la Aliou Sall ko ñëpp xam nañ ne pétrole dañ koo sàcc gaz bi dañ koo sàcc ñëpp xam nañ ne milliards ya ñu am ci seen biir compte yi moomuñu ko ñu dañu soxla góor bu ñuy liggéeyal ak bu ñuy dem jëlee liggéey xaalis bi nekk seen compte ñu delloo ñu ko ak ku am fit mel ni kii Mari Sagna taxaw ci biir assemblée bi di leen raas di leen waas ba ñuy ñàkk tooy xepp te duñu ubbi seen gémmiñ ñun loolu lañ soxla lutax tax ba Guy Marius Sagna waasee Mansour Faye ba mu ñak toy xepp lutax ka ja top gënul was dedet dedet ngàdd ba ngeen ngàdd xalé ba bo leen ko ngàddoon Mansour fay ah ngàdd ba ngeen ngàdd Ami ñay bo leen ko ngàddoon seen moromu goor bu melni ni Mansour fay nga xam lamu ñu sacc kenn xamul nu mu saccu ñu ba ñu xaalisu Covid bi ah jël xaalisu Covid bi jëndal ci yàpp yàpp yu baax jabar ji ak lekk yu baax ñuy dund dund pacha ba pare ne ñun bu ñu amee soom bi ndeysaan lijjante suukar bi kooku ngeen jàkkaarloog moom ci assemblée bi ah. ngeen war ko raas waas ko ba mu set wicc comme ni ko Guy Marius Sagna def boo leen nekkoon ñetti góor jàppal ma ko ngàddal ma ko ba yaram bi dellu si waat ci biir assemblée bi dina xam ne yàlla julli la santaane déedéet ngeen dem di xeexa Hein, un truc de lapoto en fait un comportement de vrai lapoto lapoto de première catégorie Moi, je veux bien aller en prison pour Macky Sall mais il est en prison Macky Sall il dem en prison Macky Sall ci lu ko jar loo je vais rester dans l'histoire en fait Si moi il dem ci prison Macky Sall day que peut-être dama gis Mansour Faye ma xëpp ko. troxal ko ci kanamu ñepp wala dudu kaka wala ko xamante ne dafa tak ci mom ma xamne ne bu xamna lan motax muy def buñ ma ngàddee na xam lan motax tax mu ma bañu ma ku ma ngàdd de mais nañ ma ngàdd ci liko jaar bañu ma ma saaga dañ ma saaga ci liko jaar li ngeen bëgg liñu bëgg vous êtes payé l'Assemblée nationale pour défendre tout le, toute la population sénégalaise. Vous n'êtes pas payé pour défendre une confrérie. Vous n'êtes pas payé pour défendre une race. Vous n'êtes pas payé pour défendre une personne. Vous êtes payé pour défendre tout le monde, l'intérêt général. montagne Assemblée nationale de gauche comme de droite vous êtes en infraction ni di défendre Macky Sall le Sénégal ne se résume pas à Macky Sall ñii di défendre Laye kese wacc le Sénégal ne se résume pas à Laiwad. Ni ñii di défendre tamit kese wacc askan le Sénégal ne se résume pas à ce marabu là le Sénégal se résume aux 17 millions d'habitants. habitants ya fa toog te ni euh, Assemblée nationale c'est plus les pauvres parce que c'est à eux qu'on doit améliorer leurs conditions de vie léegi loolu defal leen ko yéen lappatoo yi maintenant ce qu'il dit à l'assemblée c'est bien beau baat ñep di la tàccu ñep di bëggee wax wax lekketu kessé mo naxul bay wax kessé naxul bay tégal fi sa bay bës bu nekk naan kaa nopi noppi ci lay gëna a yuux boo ko joxee lay nopi seen wax yi lañu son Sénégal ku fa dàq duul moy politicien

sargandoom chaque jour mu fen len te ba léegi mu ngi am ñu wo woo ne ko kay sétal ma chaque jour mu triandé ay nit ñu nekk ci diaspora bi te chaque jour amna ñuy dem ñu ñëwaat encore ci Barthélémy Dias politicien et politicienne chaque jour ngeen ñuy dugul te ñun dañuy dellu dàcc ndeysaan moom la moom la moom la moom la moom la Macky Sall c'est pareil hein chaque jour mu ngi fen wa APR mais ba chaque jour wa APR moom la moom la parce que ñun suñu bopp duñu fen police muy dem di ko tàccu tey Mimi ngi ñëw Mimi Touré bañ ko diggee woon assemblée nationale bi dafa àndoon ci troisième mandat bi ne Macky Sall moom la moom la moom la moom la moom la moom la bi mu amulee assemblée nationale bi muy yuuxu kon bu subaa buñ ko woowee ne que kaay jëlu assemblée nationale bi day noppi analysez les actes. Les paroles, vous les mettez, parce que les paroles, c'est en l'air. C'est des paroles en l'air, en fait. Politiciens c'est des paroles en l'air Qui acte, qui ngeen di xool ci actes ni ñuy dundee ni ñuy cas de Marissa ni Guy Marius Sagna Il acté dañ ko député Il bàyyi yëpp mu ne du cumuler benn fonction une rek pour mieux le faire parce qu'il xam na ne benn bu ko jëlee chaque jour day ponctuel acter, de vous poser un acte. ñeneen ñi posé wuñu ay at ñeneen ñi politique yi yàgg yi lañ toog ah di fen rek di fen rek di fen rek pour ñun parce que ñoom pour ñoom fen yooyu moo ñuy dundal man nag comme man béy laa parce que dama naan béy moom day ubbi rek mbéyee mbéyee mbéyee mbéyee du noppi ko mu lekk man maay béy bi boo leen neexee sa ngeen ni maay béyu ndëpp bi parce que tant que joxoo leen ma man li nga xam te ne lii moo ma convaincre dans ce que bu fet parce que j'en fais partie je vais sauf le président Ousmane Sonko mu ngi liggéey Ziguinchor war nañ ma koñ ba set na gisuma ko muy Mumbaay di lambar la gisuma ko muy lambar lambar ci benn feet ña ginnaaw nag ki nekk ci kanam bu lambar lewul lambar lambarewul dem ci ay ngénte ah luñ ko tuddee tuddee ci ay turandoo Sénégal kenn xam nu mu toll mais gisoo ko fenn muy dem di lambar lambar ñay dem ca ngénte ya wàcc suñu liggéey ñay dem États-Unis di lekk suñu xaalis ah hein? gor sax as gor buñ la denké mère bu fekkente né yow am nga yërmande ci askan bi da nga wara jeex mais buñ la denké ben affaire nga melni ni doomu Macky Sall yi bala ñu dugg ci pouvoir bi doon normo ñu denk la rek ngay gën di funki di gën di funki di gën di funki ça veut dire quoi ça veut dire que tu bouffes et quand tu bouffes ça veut dire que tu exploites ton peuple lool la ñuy te loolu kenn duñu ko teree wax léegi nag ñun dañuy jàkkaarloo wax yéen euh, Adama Diakhaté nee na xanaa amooy nelaw aw may nelaw ndax ay dëmm ñuy jiite dañuy chaque guddi dañuy lekk lekk lekk lekk lekk ba duñu suñuy nelaw jeex toog ci askan bi di lekk seen xaalis di lekk di lekk di lekk ba pare mu am ñu mel ni aadama mun a topp ci politiciens yi leen tàcc leen sàcc leen sàcc leen sàcc leen sàcc leen sàcc leen réveillez-vous yeewu dafa jot yeewu tey la jot du suba du ginnaaw suba parce que chaque instant qui passe politiciens yi fi nekk yëpp ñun ñoo leen di fay suñu askan suñu xaalis la nous nous ñun nous l'argent du contribuable qui est payé hein. dañ ko fay pour mu Nous ko pour mu dem di nous ñun de Nous nous fay ñun ñoo gis Nous ñoo nous ñun fay Nous on a payé et on voit et on est là à râler c'est plus le moment de râler il faut taper sur la table quand il faut taper sur la table ndax ñoom chaque weer ñu jot seen salaire à temps et à l'heure balaa ñu ñuy faj sax ñun dañuy fay seen bopp ba pare balaa ñuy fay enseignant yi war a tax suñu doomi tekki dañuy fay seen bopp ba pare mosoo leen gis député assemblée di grève ndax jotul salaire mosoo leen gis ministre di grève ndax jotul salaire mosoo leen gis maire di grève ndax jotul salaire ñoom dañuy njëkk a fay seen bopp mooy ñun yoreeluñ leen ñoom ñoom ñoo ñu yoreel ñoom ñoo ñu war a liggéeyal suñu xol sedd xam nga lu tax seen i xaalis amul barke parce que ñun ñu leen di fay suñu xol seddul ci yéen nee naa la xaalis boobu barke boo xoolee sa njaboot rek xam ndax barke na wala barkewul xaalis bu am barke boo xoolee yow ni ngay développé rek di nga xam ndax barke na wala barkewul. mais wax yenn maire yi man pression là leen def pression je vais vous mettre la pression moo tax baat la naa jekkal la dama ne dama lay def pression on est gentil bu ñu racistoon praaya ngay dem dooni une maire doon doon maire Dakar première capitale de la muy Ndakaaru praaya lañ lay yóbbu mais nous on est gentil on t'a donné une mairie Monsieur Barthélémy Diaz, on vous demande tout juste d'être reconnaissant avec ce peuple-là et de ne pas nous prendre comme des cons. C'est pas parce que la pour pour nous avons la mairie hein, que nous nga def caca nous avons non des hôtels à 1 million la nuit des des réunions où on gaspille l'argent en pleine crise non té man dama kay wax parce que bo len ko waxulee fi tamit bu suba lolo len di rendi té man duma seetaan lumay rendi bala mo may ñëw rendi j'en parle à haute voix ñi yërëmuñ leen en fait yi nga doom bu yërëmul yaayam du ko defaral tant que politiciens sénégalais amuñu yërmande ci yeen ils vont faire des soirées arrosées ils vont aller dans des réunions, ils vont se taper des choses chères avec l'argent du contribuable. bi la commencer tay tay tay tay tay. imposer par la force on a des millions d'enfants qui sont dans la rue si nos politiciens se permettent d'aller se taper des des hôtels à 1 million la nuit si nos politiciens se permettent d'aller dans des euh, de faire des réunions dans des hôtels de luxe et de se payer des plats, des gambas qui coûtent un, plat à 15 euros, euh, rien que l'entrée 15 euros. Vous allez vous retrouver avec, avec, avec des soirées où une personne, ça vous revient à 100, 200, 300, 400, même voire même 500 euros. Sans compter les surfacturations. Voilà France de l'Inde du Nord. Vous avez des politiciens vampires ils di sucer parce que vous ne voyez pas clair ou bien ils pensent qu'on ne voit pas clair man awma sentiment les politicien parce que politicien politiciens ci un sentiment pour moi. il faut c'est son ventre d'abord avant moi xool ko ci les ba ngeen ko falé ba légui dafa melni ku leen jéppi monsieur le maire relax serre-nous d'une manière joviale Macky Sall mënu ñu def sa xor ñu wara romp fomp suñu rongañ di ñu jaay reewante mënu ne déedéet di yak suñu xaaliss déedéet yeewu leen dafa jot Tant qu'il y a vous allez vous faire avoir un par un. Ou bien on va se faire avoir un par un. bañuma politiciens yi de dama leen yëppi ndax ñàkk yërmande bu ñu am ci askan bi une opposition bi y a waroon ponctuel à l'Assemblée nationale comme Guy Marius Sagna Coura Macky sax moo leen gën plus ponctuel chaque heure chaque jour ensemble. Il y a ba yenn il y a un problèmes. vous trouvez ça normal dañu na pas na de ne bi troisième mandat wu Macky Sall bi assemblée nationale mun na koo mais vous faites que ña ko war a faj dem comment voulez-vous que le gars il part il ne va pas partir il va rester. Tant que vous avez un comportement hein, euh, hypocrite envers le peuple sénégalais, tant que vous n'allez pas à l'Assemblée nationale, quand, tant que vous ne nous respectez pas, population 2024 dépendre ci ñun ñun ngeen naan dem ji leen assemblée est-ce que yéen a ngi dem matin midi soir est-ce que yéen a ngi est-ce que chaque jour yéen a nga ca assemblée ba benn fan ngeen après ngeen dem 10 jours doo leen faut pas que ngeen population sénégalaise bu fi Macky Sall troisième mandat faut pas que ngeen accuser population sénégalaise parce que bu ñu waree voter ay budget tey opposition bi moy majorité ndax Mimi Touré soi-disant ci opposition bi la bokk yeen ñep ñi nekk ci opposition bi bu fekkente ne vous êtes dans le même camp tay ji ngeen juboo di wax pour le peuple Macky Sall loi bu muy voter du jall budget bi bu ñu koy voter yéenay daal mais bu di encaisser ci suuf ñii duñu dem fi je man ba pas mon intervention Je di ci la mais ana intervention je ne vois pas ana yeneen député yi dañoo mënta wax ana intervention lan moo tax est-ce que nous devons voter? c'est une position qu'on se pose pour nous en 2024 yeggaguñu 2024 de yéen a ngi naan population bi nañu génn jël sen responsabilité la population bi di jël sen responsabilité population bi jël nañ sen responsabilité ba ñu xëyee yéen ñu jox leen majorité yéen opposition bi. effectivement bara doli dem na vacances yab ñu de nee na moom day dem vacances day dem Qatar bu joggé Qatar day dem États-Unis bu joggé États-Unis day dem Umrah on est où là. léegi bu 2024 jotee ngeen naan ñun nañu jël suñu responsabilité te yéen ba ngeen nekkee woon ci biir assemblée bi jëloo leen seen responsabilité da ngeen demoon vacance ba Macky Sall voté lu ko neex voté loi bu koy arrangé tey Macky Sall bu buggee dugal loi boo xam te da koy may mu def troisième mandat yéen doo leen dem toog seen kër ah bañ a voté contre ba ba loi ba jàll après ngeen di ñëw naan na population bi jël responsabilité koo leen yàpp

parce que ça devient discriminatoire bu fekkente Macky Sall rek la ñuy attaqué du ñu attaqué opposition bi ça devient discriminatoire li ñuy bañ ci Macky Sall buñ ko nangoo suñu biir ah dañuy naxante sëy ni woon na ca ngoro ba dañ koo fayut histoire Adji Sarr man dama ko football teg ko fële ndax man xam naa ne histoire Adji Sarr c'est fini Adji elle est morte on parle de la réalité des sénégalais li nga Tay, troisième mandat ont population sénégalaise assemblée ah vacances ñi dem seen kër ñom faam naan fekk nañ bu ndax ah maire ah seen raf raf raf raf ñoom maam jaara faal ku leen gis xam ne dëmmu xaalis lañ fu xaalis nekk rek ñu ko le léegi maletu Farba Ngom yooyu noonu ñaata ñaata nit lay iri ñaata nit lay iri ci ñun parce que ay ñoom Naf jàll ñoom ñëpp gisatum leen ñooñu gisuma leen sax seen tàkkandeer ci assemblée ba xëy na ñu ngi fa de mais boo leen gisee wan leen ma bokk parce que man man instant bi dafa mel ni ne dañoo ne am nañu 83 députés opposition bi même mi Touré sax Mimi Touré buy rëy làmmeñ yëpp ana Mimi Touré ci assemblée ba. elle est où la Mimi Touré Mimi Touré bu naan opposition elle est où la Mimi Touré man ba léegi gisuma intervention Mimi Touré Les ténèbres, nee na ñoom dañuy le contre troisième mandat troisième mandat dafa ce fu ñu ko njëkk a xeexee fa ñuy voter loi ya muy assemblée nationale ngeen proposé ndoo majoritairement àndandoo troisième mandat bi bañ assemblée nationale après nous, doogay dugg ci beneen étape ministre de la justice ba mu fa toogee keroog affaire troisième mandat bi relaté ngeen ko mais ñaata nit ñoko ko relaté effectivement Mame Diarra Fam dañ ba pare xam nga yéen a man je n'ai rien contre hein. c'est une députée de Makissa. mais man savoir que je suis représentée par une idiote à l'Assemblée qui va dire que des idiots aussi c'est ça qui me fait mal au fait parce que nous, sommes censés représenter parce qu'ils font partie de l'opposition nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, wax nous, nous, kan représenter nous, ñun suñu nous, ñun nous, nous, nous, ñun nous, ñun nous, ñun nous, sénégalais opposition xuloo balaa muy neex day fekk mo am koy tontu ñu nga yéen ñëpp boo leen du loon tontu moon naa ceeb yëpp dañu gis ne Macky Sall mooy saaga kenn du ko tont kii nee Mimi amul pexe Mimi amna na pexe parce qu'elle est députée mo am immunité bu koy protéger amna na pexe de li wax ci biir plateau yi nit ki da ngay yuuxu fa nga mën a yuuxoo

nee nañ la politique slogan bandi nit ku nekk ca na muy doxalee ñàkk demu mi mi kan la arrangé Macky Sall kon ça veut que mu ngi liggéeyal Macky Sall yéen lay nax pour jël seen électorat politique slogan bandi man noonu laa gisee ah comme demul assemblée ba comme gisu ñu fa muy taxawaal mu yuuxu fa nga xam te ne amaluñu njëriñ tubaab yooyu noonu ñoo fi teg Macky Sall ñu ànd ndox moom di wéy. Nous, du mais par contre nous dem ca assemblée nationale Nous fa ñuy loi ya la majorité plus vous êtes nombreux plus vous allez gagner mais bu fekkente ne ñii dañuy gas ñii di suul ñoom gii ñu ngi gas di parce que yenn yi liggéeyal Macky Sall la c'est travail pour Macky

On les a pas mis à l'Assemblée pour se branler ou rester chez eux, se branler et chaque fin du mois percevoir leur salaire. da nga ni muy seddee nii sedd bi mais fa sama terrain, je damay xëy c'est pour que di xëy di L'assemblée, assemblée boobu terrain. Ce n'est c'est pas gratuit vous n'y allez pas comme volontaire vous êtes payé

fonctionnaires yi da leen dem heure di wàcc heure di liggéey joxe exemple bi si seen comportement ñoom ñooy tëdd nelaw ñoom ñuy voté loi yi ne kaa leen appliqué ñoom ñi nga xam te ne ñoom ñooy tax ba suñu constitution solide ndax ñoom ñoo koy solidifier ak loi yi ñuy voté règlement yi ñuy def ci assemblée nationale ñoom seen bopp ñoo ko njëkk ña ñàkk a respecté léegi kuy voté loo xam te ne moom respecté wu ko

que cette folie se trouve dans le camp de Macky Sall que ça se trouve dans notre camp tey bu ma sañoon spécimen boobu noonu nga ne elle ne rapporte rien du tout que dalle. limitation de la reine d'Angleterre là, inachevée Pour ma sañoon mu dem sa Macky Sall ça mu gën a la bugguma ko suñu may coller étiquette naan kii ci opposition bi la parce que moom rien que muy dem ak na muy solo pour dem foofu rek mu mel ni jabaru fantomas bañ leen doon jiiñ je me demande sax jawaru Fantomas bañ doon wax ci lay de est-ce que du tax ndax soriwul Fantomas kanamam bi ne Fantomas ah accoutrement ni muy solee yep melni famille Fantomas dem rek encombrer suñu assemblée bi pour dire des choses vraiment inutiles tu mets 10 minutes ay côté Mame Diarra Fam mais amul dara loy jël ci Mame Diarra Fam et dire qu'on a renouvelé son contrat mu jàkkaarloog ministre bi mu ne ko bëggoo leen ñu ñëw mais lijjante ñu na ñu ba ñëw comme si assemblée nationale dañ koy lijjante moom newul ne fan lañ ma de déedéet dafa ne lijjante nañu ba ñëw te ne ngeen déglu man jaar faam dafa ne lijjante nañu ba ñëw fii toog kon moom dafa jaar suñu maay nii lijjante ba ñëw toog assemblée kon léegi la assemblée dañ koy lijjante du mérite de lijjante la.

il faut ngeen jóg ngeen def guerre contre les politiciens de gauche comme de droite ñom ñëpp ngeen wara à Ils parce que nous, ñoo leen di fay Macky waxuma Macky Macky la xel Macky ministre ko liggéey ba ñu dañu fal ñu nga ba di imaginez-vous du ministre de la culture dem wuti ji Le ministre de du transport dem wuti ji ministre de l'énergie de wuti ji sëriñ ministre de la justice de wuti ji sëriñ ministre yëpp balaa Macky Sall doon fal ñom pendant des semaines ñu ngi woon ci all bi avant abandonné ñom ñëpp seen ministère Légui léegi saafara yooyu yëpp ngeen fokk ne xëj na ci boppu Macky Sall boppa dem na yàgg na man de saafara yoy xëju sama bopp

bés bu liggéey bi tasee mu naan ndekete lii yëpp xewoon na fi ndekete rey nañu Mancabo ndekete ndekete ndekete Abdou Diouf dañ koo hypnotiser woon ba gisul li xew ci monde bi Laay leen arrangé woon parce que màgget la xel ba xelu màgget la léegi nag mu nekk nii Macky Sall nga ko gisee ni mu sol ci coupe du monde bii nga xam ne hypnotiser nañ ko yàgg na dañ ko hypnotiser ñuy opéré di rey ah Macky Sall woon boo ko tegee ci Mancabo dee na mu ah, parce que xel ba hypnotiser nañ ko yàgg na ñoom Omar Sarr ba ñuy hypnotiser président dafa yàgg Laay Wade fii lañ dem hypnotiser hypnotiser ko jaay ko ne ko mën nga def troisième mandat mën nga def troisième mandat mën nga def troisième mandat moo xoolal policier ngi rey Laay Wade woon na ne xamuloon sax bala balaa di balaa 22 heures Laay Wade nelaw na yàgg na ba ñu wax télévision Laay Wade doo xam li xew ñuy opérer di rey di rey foofu échoué. léegi nag bu ñëwee ba ci Macky Sall lan motax ñu commencé di rey ñi nekk ci armée bi je vais vous le dire parce que 2019 ñom Macky Sall dañu infiltré woon biir armée Sénégal pour mëna jël pouvoir bi mu lolo renverser Macky Sall Lay Wàdd Légui li renversé Laay Wàdd ñoom moom la bañ mu renverser leen ñom. Ñom Omar Sarr vous allez me dire naka lañu infiltrer won euh, lay euh, PDS Omar Sarr ni mi, mi, mi, ñom ñoo ñom ñoo infiltrer won biir armée bi nekk ci biir PDS di liggéeyal Macky Sall moo Macky Sall bañ ko falé vous vous rendez compte premier ministre bi mu ñëk fal Mimi Touré la Mimi ko yapp premier ministre bu Macky Sall en 2012 Mimi Touré la mo nekk jigen bi ñi ko nekk premier ministre Sénégal Mimi Touré. ba fekk nag ñoom ñaar nee naa la ba léegi ñu ngi fóonante Mimi nekk Omar Sarr ñaari taat mi nante lañu boo fekk nag Omar Sarr a ngi biir PDS di leen renseigner li xaw PDS ak naka la ñu mën def pour daanal Laay Wàdd léegi mu toog fa toog fa toog fa toog fa toog fa 2019 Karim waroon naa ñëw mais boobu beneen histoire la dinaa ko expliquer boobu yëkkee ko toujours le même Omar Sarr infiltré opposition bi infiltré opposition bi 2019 ba Macky am deuxième mandat mu dem rallier Macky Sall def benn petit bouquin mais ci biir petit bouquin bi génne naa leen ojo bi Mame Diarra Fam di wax ne ñoom jotewuñu dara ñoom il présuppose que Omar Sarr mu ngi PDS ba léegi Omar Sarr boppam boobu mel ni ndaalu njaboot kanamam bi ne kanam bi dama joppati lu taalu Sénégal moo ko taal ak Mimi le chat Mimi le dafa foog ne moo gën a muus Sénégal yëpp pour moom moo leen gën a muus ñu dañ leen observé léegi vaar dafa am li ngeen defoon kenn Laay Wàdd ba atterrir ca Macky Sall la te ñu xam ne ci Macky Sall le politicien ñu koy enterré waaye ñaari taat yu binante la ñu <laughs> ñoom li nga dañoo opéré ci Laye Wade jóge ci Laye Wade opéré ci Macky Sall ils sont pas bêtes hein. ils savent que le peuple a évolué te Macky Sall bu fi daanoo benn politicien dootul jële ci pouvoir parce que nous mel ngi def nettoyage bi man nettoyage bi président Ousmane Sonko mënut def actuellement man ma koy def imbécile yiko les collé ni scotch hein, pour arriver à leur fin man ma fi tok ne que ni nekatul état nekatul pas xam te c'est une bande de copains yi ne tok di patio deuk bi te tey je suis libre de le faire parce que je ne fais plus partie d'aucun parti politique ah ñu mam dafa bok ci Sonko dafa bok fi bokotuma fenn comme ça wax bi neex comme ça quand j'ai envie de vous dire merde je vous dis merde comme je veux à ma façon ñun ñoo bënti ko femmes. mam y a ay discipline de parti Il y a ay discipline de militant woo oh, amut militant moy tu es libre de faire ce que tu veux

seen ndey bu ñu leen yaroon doo leen toog ci askan bi xool mag yi nekk ci dëkk bi yëpp toog di leen duul yaruñu leen léegi nag ku ndey sa ndey yarut mbedd moo lay yar ku fi sàccati alalu askan bi fekk sa yaay téyewul sa loxo mbedd bi dina téye sa loxo président bu ñu fi fal tamit te du suur ñu téye loxo waccax ko boo leen amulee rigueur boobu dans ce que vous faites, vous allez vous faire avoir dans tous les sens. man aw ma sentiment benn politicien parce que si vous jëlee ci salaire ak ah, bu ñuy toog di won na excepté président Ousmane Sonko ak Guy Marius Sagna duñu xalaat ne ne dëkk bi am na ñoo xamante ne bu ñu añee duñu reer dem leen xool photo yi ma def sama page. bat limi jaar buñ ko tégalé gambas fi est xalat na né wa dëkk bi dinañ buñ ñu añee duñu reer déedéet dafa lekk bay bëgg dé parce que c'est l'argent public jéeg ya lekk bu né fajj mais mu né jéey ba mu démé États-Unis di war na est xalat na né dëkk bi buñ ñu añee dañu reer déedéet dafa lekk bu né fajj ba muy jël 9 millions yi di ko jox boppam da ko jox boppam elle a volé ma Macky sé qu'elle a volé tôt ou tard Soit elle travaille pour Maki, hein? soit elle va en prison. nous, ñu nax suñu bopp dire yaa ne suñu bir, bëgg ñoo utiliser bu ñu nangu use faut pas les protéger faut les dénoncer te même comme suis ci Macky. et que je défends l'argent du contribuable que fi sàcc maa

sanctions, les sanctions doivent tomber. Et nous voilà nous. Nous am une par. Parce que si nous avons par par, nous sommes Ils vont nous tuer un par un. C'est d'arbre. Tay, dis-moi, euh, Biram Souleye nee na janvier day bàyyi poste député c'est bien mais Abass Fall lu muy Qui ki sant bay li muy Il y a d'autres qui cumulent des postes parce qu'une règle doit être générale sinon ça devient discriminatoire donc il Il y y a qui gens, sont sont ñi tamit nañ ci topp ñeneen ñi nañ ci topp ngir yàlla yonente bi ngeen sagal ñu yama foofu de Maimouna Dieye Maimouna Dieye moom taa àll yi comme ni ñu amee àll yi Macky la règle est valable pour toi sa dossier ngi off nag Barthélémy Dias dossier ma ngi off nag xam nga kan moo amul dossier off nag président Ousmane Sonko

Macky Sall ñàkkul fayda sa dossier da ko yóbbu of nag bu yàggee bu ñàkk bu yàggee vingt 2024 yàggatu ci nga balaa muy jël pouvoir bi mënul dara président Ousmane Sonko mais yéen ñi nga xamante ne yéen ñi nga xamante ne ah yéen yéen yéen a fa nekk yéen a nekk ci post yii nii ki nee na amatul

mu commencé maire yi sàcc yëpp du léegi la leen di jàpp de da leen di yootal yéen ñëpp mu jàpp seen day génne seen dossier loolu day fragiliser parti bi te boobaa bu leen ñun population bi la ñu def si suñu wareef de dañ leen fal wóolu leen et dans ce bu fi kenn jóg naan damay xeex damay xeex corruption déedéet damay dem jàppale politicien déedéet damay joxe sama bakkan parce que dafa bëgg a daanal Pastef déedéet yéen yéen a ko yéen yéen ñu détruire suñu liggéey yëpp lañu ñu def yëpp yéen a ko détruire parce que da ngeen am folie des grandeurs boo xamante ne vous poussez plus haut que vos culs bu ñoon dans la merde tey tey président Ousmane Sonko mu ngi def li mu war yëpp de mu ngi dem heure di wàcc heure di liggéey liggéey di defar lépp ba Ziguinchor di jaar yoon amul fenn fu ko Macky Sall di jàppee ci xaalis boo leen demee fa ñuy jàppee ñoo ñuy corrompre doo leen fa gis président Ousmane Sonko kon moom gàcce boo leen demee gis fa ñuy corrompre doo fa gis kii Mari Sagna kon ñooñu gàcce ngàllaama xam nga ñu ñu naral ni mettre dans la merde c'est ces petits voleurs et voleuses-là qui sillonnent un peu partout nous nous, ñu nous, mettre dans la merde population bi nag nous, nous, nous, nous, leen nous, nous, nous, ku nous, nekk na nous, la mu def ak la mu nous, man nous, nous, nous, nous, ne nous, Dakar peut ko nous, nous, ku dul je ne suis pas nous, hein. boo leen ko dénkoon Dakar Macky Sall du ko mas a mën a jël récupérer Dakar ndax amul benn lu tilim tilim lu nekk ci moom Dakar boo leen ko dénkoon Fadilou kayitaa wala ngeen koy yóbbu fële na lee Ziguinchor euh, euh, Kaolack amul dara lu takk ci moom du mun ci moom dara te dërëm bi du génn ci gaal bi ndaxte mënoo am première partie ba pare ah jël li gën a duuf ci ndab li di ko jox beneen parti ils allaient jamais faire ça pourquoi on a fait ça pour eux c'est ça le problème léegi nag loolu ça plus ça plus ça Sonko rek lañu war a protéger Bok. ak Guy Marius Sagna ku yeewu na ñaanal Sonko ñaanal Guy Marius surtout Guy Marius assemblée nationale bi ñaanal leen ko aar leen ko ngeen ne ko micro bi buñ ko mënee jëndal micro nañ ko jëndal micro may ko micro, dem mu yóbbu micro boppam ba mu laal micro assemblé ba ndax ay dëmm lañu micro. nit lañu ay nit ñaa fay dee nit ñaa ngi def crise cardiaque ci assemblée ba maa ngi leen di nuyu di leen di leen gërëm ne leen le combat continue faut pas se faire avoir lekket que naxul béy il faut que mo am lu nek ci biir leket bi bu len nangu kenn di len nelawal ku jël sen xaalis ci yu mbé en période de crise il faut en parler combattre